Rufisque am nañ mbégte bu baax a baax wala li nga xamante ne tey inauguration bi ñu war ko def fii nii wala ñi nga xamante ne waa 2STV itam ñu seen loxo ñoo tamit defal leen li nga xamante moo di direct bi pour Sénégal bi yëpp mën seetaan li nga xamante moo di inauguration bi Adama Kanté voilà je rappelle que Mbaye Faye du euh, directeur général CSTP euh, bi assainissement bi ak éclairage Mbaye Faye euh, ministre bi dal na fi léegi mu ngi lay tooñ mu ne mais pelouse bi rafet na te jii lan ngay ressentir ci inauguration Sane Ngalandou Diouf ci liggéey bi ñu def parce que ci xam-xam lañ ko teg teg ko ci xarañte teg fi gazon boo xam ne dafa conforme aux normes internationales yaakaar naa ne loolu fierté la pour ñun ndam la pour réew mi yëpp parce que Sénégal rek moo tax ñu liggéey. piste athlétisme bi ngeen di nii maa defar defar ci plus te kenn fay ma ko def gratuitement pour ndamu Sénégal. donc euh, loolu mooy li am solo pour wane ne àdduna du wut xaalis rek moo am solo liggéeyal sa réew rek moo am solo te yaakaar na ne ñu ngi ci liggéey boobu. donc juróom-benni at na ngi nii ñi nga xamante ne mooy population bu Tëngéej ñu ngi doon xaar maanaam stade bu mel nii est-ce que mën mën nga wax yan garantie nga la bi am pour mën a dund bu yàgg. li nga xam ne moom lañ defar daal bu fekkente ne sam nañu entretien bi def la war a def jàpp naa ne 10 à 15 ans gazon bi du bouger au yota parce que gazon de qualité la. mais nag il faut ñu def entretien bi too ko samanto ak suñu recommandation yi loolu rek mooy li am solo. alors peut-être aussi euh, tey jii boo amoon conseil bi ngay envoyé à l'endroit des sportifs de Rufisque puisque defar bi aussi am na solo mais entretien bi je pense que aussi am na solo trop. war nañ koo sàmm defar ko sàmm euh, entretien bi def li ñu war a def boo fu ñu bëgg a ak suba mu àgg fa ñu sam ko bañ koo dagg bañ see def leneen naka sudul noonu. Hmm. mais gannaaw ci loolu est-ce mbay fii am na li nga xamante ne moo di ay caméra yoo xamante ne ñi def defkatu ñaawtee fii bu ñëwee fii bu ñu leen bu ñu defee dara ñu mën leen ñu mën leen jàpp a caméra yi. malheureusement prévoiruñ ko mais bon jàpp naa ne amul problème particulier bon xëy na éleg état na ko def mbaa mairie bi def ko parce que bokk bokkuloon ci liggéey bi quoi. voilà merci Mbaye Faye. merci beaucoup moom mooy directeur général CSTP SA donc euh, je pense que euh, Babou dans le programme il est prévu de football. Yes, entre euh, l'équipe Samb et l'équipe de Lebougui. Euh, ça une façon de dire aux Rufisquois que enfin euh, le stade attendu tant et que les navétanes vont que ce championnat national populaire va reprendre normal ici à, à Mais quand tout de suite, euh, on va essayer de lancer un élément, ouais. en fait, euh, un reportage. Après, on revient pour voir l'inauguration avec le ministre des Sports. Voilà. Donc, nous euh, Actuellement, c'est le ministre des Sports qui est en train d'inaugurer, qui est en train de couper le ruban pour euh, donner le stade euh, aux populations. Voilà. Babou, lolu moy li nga xamantene moy coupure du ruban ministre des sports Matar Ba mom mhm. moko def mom aussi il faut mu ñew fi ci kanam pour que ñu mëna waxtaan euh, ci ci mbir moomu parce que je pense que am na solo trop euh, tey jii euh, le fait que Rufisque soit resté six ans sept ans parce que demi depuis 2011 voilà on me depuis sept ans amuñu nawetaan tey jii donc je pense que lu am solo la alors mu ngi nuy préciser d'abord nga présenté wu. tout à fait man maa ngi tudd Xaasa Sène je suis ici à la rajo Joko FM à Rufisque. Euh, ci kaw loolu tey nag bés la boo xam ne bii bés bu am solo la ndaxte bés bi dafa doon la remise des clés du stade Ngalandou Diouf toog nañ juróom-ñaari at jàpp juróom-ñetti at yoo xam ne bii fii yëngu li nga xam ne bii moom mooy wàllum sport tàggat yaram amu fi woon tey nag bu fekkee ne ñëw nañ Matar Ba la ministre des sports daal di ñëw àndax le ministre de la justice garde des sceaux Ismaïla Madior Fall àndax tamit ki nga xam ne kii le conseil départemental de Rufisque à sa tête monsieur Souleymane Ndoye àndaat tamit ki nga xam ne kii moom mooy El Hadji Daouda Niang l'incontournable maire de la ville de Rufisque ak toutes les autorités notamment le maire de la commune de Rufisque Nord, Mam Omar Mané, la commune de Rufisque Est, El Hadji Boubacar Albendoy, la commune de Rufisque Ouest également, Aline Falmar, ñëw fii nag ànd ak tamit les associations sportives et culturelles fii ci Tëngéej tout le mouvement sportif ñëw fii nag daal di koy indi li nga xam ne bii moom mooy la remise des clés mbégte la bànneex la te yaakaar naa ne incha allah li nga xam ne bii moom mooy stade bi dinañ ko sauvegarder dinañ ko jàpp dinañ ko toppatoo dinañ ko maintenir ba bu xam ne incha allah yàlla mayee lépp loo xam ne bii compétition la sur le plan national war nañ ko mën a amee fii nga xam ne fii moom mooy stade Ngalandou Diouf en tout cas daal stade Ngalandou Diouf ci boppam gàcce ngalama wante tamit gàcce ngalama les autorités merci à la 2STV. voilà on va voir Amadou Diallo ñëw na mais on me fait signe qu'il y a un élément boo xam ne dañ koy proposer téléspectateurs yi après ñu dellu si léegi élément avec la complicité de la réalisation. Diallo Diallo bàyyi si yëpp kii waay yëpp Ismaël Madior Fall, euh, professeur de droit et de sciences politiques, euh, ministre de Sénégal, né à Tenguej en 1967. Bon, Tenguej d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que c'est une ville historique. C'est, euh, Tenguej fait des quatre premières communes d'Afrique pas du Sénégal, mais d'Afrique. une des vieilles quatre communes du C'est une ville culturelle, une ville très politique, euh, une ville qui compte beaucoup au Sénégal euh, et en Afrique. Euh, c'est une ville cosmopolite. Ça veut dire qu'à Rufisque, on a euh, des Sénégalais, des Africains qui viennent de partout. Euh, on a toutes les religions. Et il y a une entente cordiale entre euh, ces citoyens. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que la vieille ville de Rufisque est en train de se rétrécir, un peu du fait de l'avancée de la mer. donc il y a beaucoup de quartiers comme Diokoul, Tchéoulène, euh, Mérina, Kerikao, Kerissouf, qui ont perdu une partie de l'espace. Euh, la plage à Rufisque s'est rétrécie parce que Rufisque avait dans le temps de larges plages. Parce que vous savez, Rufisque a euh, abrité le premier port Le port, c'était pas à Dakar. Le port, c'était à Rufisque. Voilà, parce que c'est une ville historique, c'était une ville commerciale, une ville de traitants. Et les grandes maisons de commerce françaises, notamment bordelaises, étaient établies euh, à Rufisque. Bon, aujourd'hui, il faut dire quand même que euh, il y a une nouvelle partie de Rufisque qui se développe. Il y a des quartiers, par exemple, qui autrefois n'étaient pas très habités, mais qui sont devenus aujourd'hui très peuplés. Le quartier, par exemple, Arafat, Euh, qui n'était pas très bien habité, mais aujourd'hui qui euh, contient l'essentiel de la population rufiscoise. Gouimourit. Gouimourit, c'est un quartier où il y a presque 40 000 habitants. On a Djorga qui se développe aujourd'hui, euh, les, quartiers traditionnels, Dangou, euh, Darussalam, Fas, et puis de, de nouveaux quartiers, voilà, comme Santial, etc. Donc voilà, si on veut aller à Rufisque, il y a les jardins publics on pratique tous les sports, les jardins publics. Euh, il y a quelques petits on mange du bon poisson. Voilà, est une ville très historique, mais surtout aussi une ville très culturelle. Par exemple, beaucoup d'artistes sénégalais euh, sont originaires ou ont vécu à Rufisque, on ne le sait pas assez. Ismaël Lo, par exemple, c'est un Rufisquois. Euh, Suleiman Faye, euh, il est on ne le sait pas. Cherlo, Cherdigolo, il est Rufisquois. Gourguindiaï, il est Rufisquois. Mamgor, Mamgor Diazel, il est Rufisquois. euh, la voix historique euh, de la musique sénégalaise. Donc il y a bien, bien, bien des talents, bien des artistes, bien des sportifs qui sont, qui sont rufusquois. Puis d'autres encore. Maintenant, bon, euh, le problème de Rufusco aussi, c'est quoi C'est que pendant longtemps, comme c'était l'une des plus grandes cités du Sénégal, euh, beaucoup de Sénégalais quittaient euh, l'intérieur du pays pour venir s'établir à Rufusco. Et à l'époque, les Dakarois, en tout cas, bien des Dakarois, venaient travailler à Rufisque et rentraient le soir à Dakar. Pourquoi Parce qu'il y avait de grandes entreprises implantées à Rufisque. Et donc les gens quittaient Dakar pour venir travailler à Rufisque et rentrer le soir sur Dakar. Aujourd'hui, le mouvement s'est un peu inversé. <laughs> Rufisque est devenu de plus en plus une ville dortoir. Les gens viennent travailler à Dakar et rentrent à Rufisque. Mais heureusement qu'il y a une nouvelle perspective de développement de Rufisque avec euh, euh, le développement de Diamniadio. Et c'est une ville, on ne le dit pas assez, très sportive. Rufisque a par exemple produit euh, beaucoup de sportifs du Sénégal. Rufisque a gagné la Coupe du Sénégal en 1977 avec le Saltigué. Rufisque est une ville on pratique beaucoup le sport. Je me rappelle quand on était jeune, euh, outre les nawetanes classiques qu'on dans tout le Sénégal, nous on faisait des nawetanes aussi de basketball la nuit. Autrement dit, le jour, les après-midi, c'était nawetan de football et les nuits, c'était nawetan de basket. Rufisque, par exemple, a la meilleure équipe de handball du Sénégal. Voilà, Rufisque est une ville où on pratiquait beaucoup de tennis de table. Voilà, donc c'est une ville très, très, très sportive. Et aujourd'hui, c'est pour ça que on est très content euh, d'avoir euh, notre stade euh, qui va être réouvert, bon, parce qu'il était ouvert, qui va être réinauguré, parce qu'il était déjà inauguré. Mais là, je pense que le président de la République, Macky Sall, a eu l'heureuse initiative de reprendre le stade, de le réhabiliter, de le moderniser, et de donner ici encore euh, euh, à la jeunesse rufiscoise une chance de se réconcilier avec le sport, le football et le nawetan. Parce que, il faut le préciser, ça fait sept ans qu'il n'y qu avait pas de nawetan à Rufisque, évidemment du fait de la violence. Mais aujourd'hui, je pense que l'inauguration de ce stade va permettre la réconciliation euh, de la jeunesse rufiscoise, du monde sportif rufiscois, avec le football, avec le sport, avec la nawetan. On avait Euh, arrêté le navétane à Rufisque pendant sept ans. Une des raisons, peut-être pas la seule, mais une des raisons, c'est qu'aussi il y avait trop de violence. Ce n'est pas spécifique à Rufisque. Aujourd'hui, il y a de la violence dans les stades de façon générale, notamment dans les navetanes, et même au niveau de la justice, on a des cas. On a des cas, par exemple, voilà, des jeunes de Wakam qui sont en prison, euh, le problème avec le stade de Mbou, euh, on a eu des problèmes avec Barigny. des jeunes de Bargny qui sont en prison du fait des violences sportives. C'est pour ça que je voulais lancer un appel très fort, un appel pressant euh, à la jeunesse rufiscoise et au-delà à la jeunesse, à la jeunesse sénégalaise pour qu'on comprenne que la violence n'a aucun sens dans le sport. Qu'il y a une incompatibilité entre sport et violence. Sport, c'est loisir. Sport, c'est pour s'amuser. Donc, il n'y a pas de raison qu'il y ait de la violence. Et souvent, quand, de la violence, quand il y a de des problèmes difficiles parce que ça entraîne souvent des, des déchirures et parfois ça, ça, ça, ça fait des victimes. Et lorsque ça fait des victimes, le problème est compliqué à résoudre. C'est pour ça qu'encore une fois, je voulais exhorter la jeunesse rufiscoise et au-delà la jeunesse sénégalaise à euh, se réconcilier avec le sport, à pratiquer euh, le nawetan, à organiser le nawetan, mais en éradiquant, en éradiquant la violence des stades. sonewuñu dañoo tabax li ñu tabax mooy euh, dañoo defar forme euh, les discours euh, euh, donc mais on voudrait juste rappeler que le ministre des Sports déjà est en place il est en compagnie de son collègue euh, le garde des Sceaux ministre de la Justice alors Babou Ndour je voudrais quand même qu'on introduise très rapidement notre ami Amadou Diallo moom mooy def au galop mais moom il est de Rufisque jallo peut-être très succinctement lan ngay mën a wax tey jii ci li nga xamante ne moom la Rufisque am jërëjëf Adama Kandé tey am nañ mbégte bu rëy rëy ci li nga xam ne moo xew tey fii ndax le mouvement associatif booy xool ñëpp ñëw nañ tey boo xoolee depuis sept ans kenn organisé wul li nga xam ne mooy navétane au niveau de Rufisque tey ñuy ubbi li nga xam ne mooy stade Ngalandou Diouf mu nekk mbégte moo xam ne képp koo xam ne yaa ngi ci mouvement associatif bi yaa ngi ciy bég boo xoolee ci ginnaaw gis nga jeunesse bi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw Adama Kandé lii gëjoon na am ñuy remercier le président de la république monsieur Macky Sall di remercier nag ki nga xam ne mooy le ministre des sports muy Matar Ba waaye di remercier nag ki nga xam ne mooy le ministre de la justice muy Ismaïla Madior Fall di remercier nag autorités yi nga xam ne ñoo nekk Tëngéej yëpp jàpp ci lii muy le maire ba lii mën a yegg si fii tey Adama daal mbégte la ñu am ñu mouvement associatif bi nga xam ne ñoo nekk fii ci Tëngéej. Merci Amadou donc Babou Ndour je pense qu'on va introduire euh, appeler ami et grand frère euh, pour euh, le déroulé de ce programme qui attend donc euh, tout ce beau monde qui est là. Alors, on rappelle juste encore une fois que Rufus est resté 6-7 ans sans jouer au Navetan. Mais voilà que cette belle pelouse, ce stade neuf, va leur permettre, ces jeunes de Rufusque, de retrouver enfin euh, ce championnat national populaire. Alors, Pape Diouf, pour le reste du programme en direct et en intégralité sur 2STV, Pape Diouf. Voilà, euh, Adama. Mesdames et messieurs, donc nous sommes en direct sur la 2STV lu ñu bëggoon rek ñoo commencé ñu dal di def benn minute de silence à la mémoire des disparus que sont Assane Paye, ancien international et Néné Biteye, journaliste sportif groupe Walfadjri. Merci. ma ne ñun ñëpp nañu jug taxaw ñu jóg la minute de silence. ñu def une minute de silence. ñoo ngi leen di de silence. Voilà, merci. C'est donc euh, la minute de silence à la mémoire des disparus Hassan Paye international et Nene Bitey, journaliste sportif à Wolf TV. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant devoir procéder à l'exécution de l'hymne national du Sénégal. Voilà, merci. Merci. Mesdames et messieurs, nous allons saluer la présence de ces autorités qui sont parmi nous, à savoir Monsieur Matarba, ministre des Sports, Nous saluons également la présence du ministre Gardesso, ministre de la Justice, le professeur Ismaël Madior Fall. monsieur le maire de la ville de Rufisque El Hadji Daouda le président du conseil départemental de Rufisque monsieur Souleymane Ndoye ñu ngi nuyu itam monsieur le maire de commune Rufisque Nord Mame Oumar Mané et le représentant du collectif pour la réfection des stades et le représentant du mouvement associatif ñu bawuñu ñëpp nous saluons toutes les autorités sportives les anciens footballeurs de Rufisque qui sont ici présents kon nag mon cher ami. waaw Lamine di gërëm rek ministre des sports wax nañ leen ñëw na. waaye ñi ko teeru mooy le maire. waaye ki nga nii moo ko teeru itam mooy le directeur général bu AGETIP Alaaji Malick Gaye ma nga nele waaye le directeur général de la CSTP Alaaji Mbaye Faye moom itam li mu waxante woon ak Tëngéej li mu waxante woon waa ak état bi moom la def nii waaye moo tax tey ñu koy inauguré tey muy une date historique ndax juróom-ñaari at a ngi nii inauguré stade bi du tëj ko tey jii lañ ko tey jii la mbay Faye di jox clé bi ki nga xamante mooy le ministre des sports Matar Ba mi nga xamante nii yéex naa ñëw ci bopp sport xaw tut ñu dee lii la leen président de la République son excellence Macky Sall digoon tëggee ja ngi nii estan nga lañ juufa ngi nii Pape Faye yaakaar naa ne bis bu rëy la tey bés la waaye tam di gërëm di sant bu baax koo xamante ne kii c'est un fils du pays kooku mooy kan mooy El Hadj Mbaye Faye di le directeur général de CSTP def fi ay réalisation yu am am solo sooy xool euh, mon cher ami Lamine kooku réalisé na Amadou Stade Bali def ay réfection pelouse éclairage ak euh, yeneen canalisation mu dem Alassane Diogo def la même chose mu dem Demba Diop def la même chose mu dem itam Stade Caroline Faye def ay construction tribune modulaire de 2000 places ak 2000 chaises réhabilité la tribune avec une salle de conférence une salle antidopage avec une infirmerie waaye nag yemul foofu dem na itam fii ci Rufisque Istane Ngalandou Diouf def construction d'une grille de protection assainissement éclairage ak pelouse synthétique bi ngeen di gis mu dem fan stade de Mbao fa la grille de protection le euh, le système d'assainissement la pelouse synthétique waaye itam yemul foofu Mame Mbaye Faye mu dem stade Ndiarème Limamoulaye réaliser la tribune modulaire de 1600 places éclairage sportif assainissement vestiaire terrassement pelouse synthétique waaye itam dans les régions comme Sédhiou comme Kédougou ak yeneen gox nga xamante ne y a des stades qui sont en voie de construction et ça c'est grâce à notre ami monsieur Mbaye Faye qui est le directeur général de CSTP donc euh, Léopold Sédar Senghor itam il a réalisé mmh. la pelouse naturelle, mmh. l'éclairage sportif, les terrains d'entraînement, le système d'arrosage moderne. Au stade La Dior de Thiès, pareil, une pelouse naturelle, les forages, il y a deux forages, une salle antidopage, un système d'arrosage moderne avec ay pompe solaire kooku mooy kan El Hadj Mbaye Faye. kooku mooy directeur général bu SSP di borom Waldaadine Faye mi nga xamante ni mooy docteur jàkka yi tabax stade yi waaye tabax gendarmerie waaye tabax li nga xamante ni moom la war a def. waaye du nuyu nag Seydina Diagne secrétaire général bu SOCONOS moom tam ñëw na ànd ak le ministre des sports ak Paul Ndong son secrétaire général bu ministère ak Babacar Ndaw ak ministère bi yëpp ñëw nañ gunge si ki nga xam mooy ministre des kon nag le préfet Serigne Babacar kan di préfet bu département de Rufisque moom itam ma nga ne la toog ànd ak sous préfet ànd ak ñi mu war a àndal ñëpp Pape Faye defe naa ne ñu ngi nag ci liggéey bi waaye sama jigéen Khady Thiam Seck mi ngi ci mbooloo mi moom itam. léegi nag ñu xamante ni kii mooy def son allocution. d'ouverture mooy monsieur le maire de la commune de Rufisque Nord notre ami Mame Omar Mané. Khadija Pape Faye histoire day bindaat fii il y a de cela sept ans stade bi kenn footballu ci il y a de cela sept ans nawetaan amu fi son excellence le président Macky Sall juumut ba mu Ba ministre des depuis 2014 teg ko bi bam ñëwee.

Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le préfet du département de Rufisque, Monsieur le président du conseil départemental de Rufisque, Monsieur le maire de la ville de Rufisque, Monsieur le maire de la commune de Rufisque-Est, Monsieur le maire de la commune de Rufès-Ouest. Mesdames, Messieurs les autorités administratives, politiques et civiles, Monsieur le Président de l'Association nationale des arbitres du Sénégal, Monsieur le Président de l'ONCAV, Monsieur le Président de l'ODECAV, Monsieur le Président des conseils communaux de la jeunesse, Monsieur le Président des jeunes, Monsieur le Président des ASC, Madame, Monsieur, distingués invités, à vos rangs, titres et grades, tout protocole respecté. Monsieur le ministre des Sports, je voudrais à l'entame de mon propos vous saluer, vous remercier mais surtout vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans notre commune de la vieille ville de Rufisque, témoin privilégié de la longue et riche tradition d'honneur, chargé d'histoire sportive. Ces mêmes remerciements s'adressent à la forte délégation qui vous accompagne, mais aussi aux populations de Rufisque qui sont venues vous accueillir. Cette cérémonie de réouverture du stade Galandou Diouf qui nous réunit aujourd'hui revêt un caractère important à plus d'un titre, eu égard à son sens, mais aussi à sa haute portée dans la politique sportive définie par le chef de l'État et mise en œuvre par votre département ministériel. En effet, sept ans pendant durant sept ans le stade Ngalandou Diouf est resté fermé pour des travaux de réfection afin de permettre à la jeunesse rufiscoise d'évoluer dans un environnement sportif approprié avec toutes les commodités requises. C'est pourquoi, monsieur le ministre, en procédant aujourd'hui à la réouverture du stade Ngalandou à l'instar de l'inauguration de l'arène nationale et de Dakar Arena, vous choisissez assurément un angle d'approche efficace pour améliorer les conditions de pratique sportive de la jeunesse sénégalaise. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les invités, permettez-moi avant de conclure mon propos de rendre un vibrant hommage au président de la République, son Excellence M. Macky qui a pris en charge le gazon synthétique, les projecteurs, le mur de protection et l'ensemble des travaux annexes et connexes du stade. Par la même occasion, je remercie le maire de la ville de Fusque, M. Daurania, d'avoir pris en charge la charpente du stade qu'il me soit aussi permis de rendre hommage à ses prédécesseurs, Mamadou Korafal, Fombe Jacques Diop, Fondiavar Touré et Badara Mamaya Sen. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du préfet du département de de sa maîtrise des dispositions réglementaires, notamment le décret 926 du 23 juillet 2014 et l'arrêté préfectoral 236 du 8 août 2014. Sans oublier évidemment la jeunesse rufiscoise pour leur patience et leur comportement citoyen. Je ne serai terminé sans lancer un appel à la population de Rufisque pour une conscience citoyenne afin de sauvegarder ce joyau et d'en faire un bon usage. Donc, je vous remercie de votre aimable attention. Merci. allo allo. allo. voilà merci merci jërë ngeen jëf. merci merci là-bas. merci. léegi nag ñu ngi jox kàddu gi euh, sur euh, la tribune ngeen meññu tuuti rek ngeen meññu tuuti rek. ñu ngi jox kàddu gi le représentant du collectif pour la réfection du stade à notre ami Abdou Lakhat Diakhaté. Abdou Lakhat la ñuy jox kàddu gi waaye délégation bi jóge Ngoundiane ñëw na Gora Ngom jiite ko ak El Hadj Moussa ñu jóge ci comité rural bu mag boobu jóge Ngoundiane ñëw ñoom itam gunge si le directeur général de la CSTP monsieur Diakhaté. représentant collectif c'est vous la parole. ñu ngi nuyu Seydou Diouf le président de la fédération sénégalaise de handball. monsieur le ministre des sports. monsieur le garde des sceaux. ministre de la Justice, Monsieur le préfet du département, Monsieur le président du conseil départemental de Rufisque, Monsieur le maire de la ville, chères autorités, chers invités, amis sportifs, c'est avec un grand plaisir que le collectif des Rufisquois pour la réhabilitation du stade Ngalandou Diouf participe aujourd'hui à la mise en service du stade de Ngalandou Diouf de Rufisque. Un jour mémorable pour la jeunesse du département de Rufisque. Avec votre permission, Monsieur le ministre, j'aimerais entamer mon propos par cette citation de l'imminent médecin sociologue français Gustave Lebon que je cite. L'anarchie est partout quand la responsabilité n'est nulle part. En effet, nous devons notre présence aujourd'hui dans ce stade au sens de la responsabilité et à l'exemplarité de la jeunesse de Rufisque qui a su revendiquer fermement un droit mais tout en restant républicain, solidaire et surtout très respectueux des lois et règlements de notre chère patrie. Le ministre des Sports disait à ce propos que notre jeunesse a vendu positivement l'image de Rufisque. Et sur ce, le collectif des Rufisquois pour la réhabilitation du Stade Ngalandou Diouf voudrait saisir cette occasion pour féliciter très chaleureusement toutes les personnes ressources qui, de près ou de loin, ont eu à accompagner cette dynamique porteuse d'espoir pour Rufisque. Mais également, nous devons notre présence aujourd'hui dans ce stade à l'implication active des autorités administratives et élus locaux du département. Nous citerons à cet effet Monsieur Babacar Khan, préfet du département, Monsieur Souleymane Ndoye, président du conseil départemental de Rufisque, Monsieur Daouda Niang, maire de la ville de Rufisque. Le collectif des Rufisquois pour la réhabilitation du stade Ngalandou Diouf réserve tout naturellement une mention spéciale à Monsieur Matarba, ministre des Sports, un homme d'État charismatique dont le leadership éclairé a permis l'aboutissement du dossier du Stade Ngalandou Diouf. Monsieur le ministre des Sports, Rufisque a fini d'apprécier votre grandeur d'esprit, votre disponibilité et votre générosité. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement car la pratique du sport confère à l'individu une merveilleuse posture mentale et des capacités essentielles pour servir sa communauté. Monsieur le ministre, que vous témoigne toute sa gratitude et voudrait vous rendre un hommage appuyé pour votre accompagnement et votre oreille attentive tout au long du processus de réhabilitation du stade Ngalandou Diouf. Le processus a été long et parfois très mouvementé. Un combat vous a été déclaré au début de nos manifestations, mais vous avez eu la bonne posture, celle d'un bon sportif, j'allais dire celle d'un bon homme d'État. Nous n'oublierons pas les entreprises qui, aux côtés des autorités, ont répondu à l'appel de la jeunesse de leur pays. Je veux citer l'AGETIB, l'ADM, la CSTP. L'on dit souvent que le sport fédère, rassemble et mobilise, à l'occasion des grands événements bien sûr, mais pas seulement. Regardez aujourd'hui, nous sommes tous réunis, population de Rufisque, autorité gouvernementales, élus locaux, autorités administratives et mouvements associatifs. Nous sommes tous naturellement venus témoigner de l'importance de la mise en service du stade Ngalandou Diouf de Rufisque, qui jusqu'à ce jour détenait la caution sportive des ambitions du département. sur le plan évidemment des infrastructures. Par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, et la diligence du gouvernement dirigé par Monsieur Mohamed Boun Abdallah Dionne, aujourd'hui le département de Rufisque abrite un nouveau complexe sportif digne des standards internationaux. L'État place ainsi le département de Rufisque comme nouvelle plaque tournante du sport national. Il nous appartiendra, nous Rufisquois, de revoir nos rapports avec la pratique du sport et surtout nous mobiliser dès à présent pour relever le défi de maintenir, entretenir et pourquoi pas développer ces infrastructures. En tout cas, tous les ingrédients sont à présent réunis pour que Rufisque fasse émerger de nouveaux talents dans, le, dans toutes les disciplines. Alors pour terminer, comme le disait Albert Camus, fan inconditionnel du, du football, il n'y a pas d'endroit où l'homme est plus heureux que dans un stade. Alors, chers sportifs rufiscois, soyez heureux. D'ici quelques minutes, Rufisque se remettra enfin à vivre au rythme des grandes ferveurs du sport. Je vous remercie. Que la fête soit belle. Merci. Monsieur Abdoulaye Diarraté, merci bien. Euh, léegi ñu jàll ci beneen orateur waaye balaa boobo damay fàttali mbokk yi nii dañu nekk Tëngéej te dañu fa fekk ay communicateur ñu nekk fii yu am solo. Mhm. des communicateurs traditionnels mhm. des euh, journalistes ak yooyu yëpp ci kanam tuuti xam naa ne ku nekk dañ ko jox rek mu am lu mu ci sànni parce que Sénégal loolu la dañu war a partager la mine n'est-ce pas. loolu moo jaadu ndax communicateur Tëngéej yi tamit ñu xam Tëngéej la ñu. waaw ah, mu ngi nuyu gouverneur adjoint au gouverneur bu région de Dakar ñu ngi koy nuyu moo accompagné préfet ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. di nuyu itam Abdou Ndiaye moom itam di conseil premier ministre ak. li baas baas d'accord ci ñi ànd ak le ministre des sports ci la bokk. merci Pape Faye léegi nag ñu ngi jox kàddu gi le représentant du mouvement associatif monsieur Babacar Dieng. Babacar Dieng. salaamaaleykum mbooloo mi monsieur le ministre avec votre permission. je voudrais inviter l'ensemble des présidents de zone de la ville de Rufis, inviter le collectif pour la réhabilitation du Stade Ngalandou Diouf pour un geste symbolique de remise de cadeaux à l'endroit de monsieur le ministre des Sports et à l'endroit du maire de la ville de Rufisque, monsieur Daouda Niang. J'invite aussi Monsieur le Président de l'ODECAF de Rufis et Monsieur le Président de l'ORCAF de Rufis à se joindre à moi pour cette remise. Merci. Voilà, cérémonie de remise de cadeaux par Monsieur le représentant du mouvement associatif, Monsieur Babacar Dieng léegi su ko defee nag Euh, léegi nag ñu jox suñu mbokk mi mbay yaakaar naa ne tey bis bu rëy la esaat nga leen Diouf beesalaat nañ ko ba mu bees tàq après sept ans euh, yaakaar naa ni am na kàddu yoo ci sànni. la remise la remise euh, d'un cadeau du représentant du mouvement associatif aux autorités qui sont ici présentes. El Hadj Lamine Tëngéej tey am nañu. lu ñu mën a gisaat waaye lu ñu mën a nawaat ndax tey fii monsieur le ministre Matar Ba toog dendeek Ismaïla Madior Fall garde des Sceaux dende ak le président du conseil départemental Souleymane Ndoye Dende ak El Hadji Daouda Niang Dende ak Mame Dende ak Alioune Mar Dende ak Albin Ndoye dama wax ni bés bii bésab Tëngéej la waaye bésu département bi la juróom-benn ku ka toog amoo amoo foo épanouiru ñu dem ba delloowaat la sa moomeel jaadu na jekk na nit ñi wax ni autorité yooyu ko delloo siwaat muy le maire Daouda Niang le bureau municipal. voilà ngeen ci loolu les conseils municipaux. voilà merci le cadeau c'est le cadeau d'amitié du ngeen ko moomeelam. voilà ngeen ko moomeelam. kon bu ñu toogee dañu leen di wax. merci. léegi monsieur le ministre des sports le ministre de la justice garde des sceaux monsieur le maire de la ville de Rufisque monsieur le préfet du département de Rufisque honorables députés de Rufisque messieurs les maires des communes de Rufisque-Est Rufisque-Ouest et Rufisque-Nord chers invités, chères autorités, à vos titres, rangs et grades, permettez-moi à l'entame de mon propos de rendre grâce au bon Dieu pour nous avoir permis d'assister aujourd'hui à cette importante cérémonie. Cette cérémonie qui revêt un caractère exceptionnel. Mon cher Abdullah l'a rappelé tout à l'heure, Nous sommes restés plus de sept ans sans voir le ballon rouler à Rufisque. Nous sommes restés plus de sept ans sans voir les jeunes communier autour du sport. Nous sommes restés sept ans sans voir nos clubs d'élite évoluer dans leur ville. Monsieur le ministre, nous sommes restés sept ans sans voir cette ferveur, sans voir l'engagement des acteurs sportifs autour du Stade Ngalandou Diouf. Si aujourd'hui l'occasion nous est permise de voir ce joyau réouvert pour le profit tout simple des populations rufisquoises, nous voudrions encore vous dire merci. Merci à vous, mais merci au président de la République, M. Macky Sall, qui a su comprendre que la jeunesse a besoin de s'épanouir, que la jeunesse a besoin de vaquer à des activités de loisirs. Et il en a pris pour faire de, du Sénégal un cinéma, Sénégal émergent avec le sport. Et ces actions ont été traduites par la volonté du ministre des Sports, M. Matarba. Monsieur le ministre, depuis votre avènement, le sport a connu des avancées notables. Vous vous êtes investis corps et âme pour donner à cette jeunesse des SAT, des centres multifonctionnels, des aires de loisirs, des cadres d'épanouissement, bref. Monsieur le ministre, le mouvement associatif rufiscois se joint à mon nom pour vous témoigner toute notre gratitude, pour vous témoigner tous nos remerciements pour les efforts que vous avez bien consentis pour que Rufisque retrouve son stade. La volonté exprimée par la ville de Rufisque, et c'est l'occasion de rendre un vibrant hommage au maire d'Aoudénia, le meilleur maire de sa génération. Permettez-moi, chers invités, de dire que nous sommes réjouis que nous sommes contents, que nous sommes satisfaits aujourd'hui. On n'aura pas peut-être les mots pour pouvoir magnifier tout notre contentement, mais dire seulement merci au président de la République Macky Sall, dire merci au ministre monsieur Matarba. Monsieur le ministre tey bis bu rëy la ci ñun parce que dañu toog juróom-ñaari at mu am. taxawaay bu am ndax yéene amoon ci ñu defaraat stade de Ngalandou Diouf et c'est l'occasion de remercier mon ami monsieur le maire Badara Mamaya Sène bi ñu toogee ay jafe-jafe am le maire Daouda Niang ñëw il a pris la le dossier en mais il s'est investi corps et âme def noo xamante ne ni tey ñun xale yi sax mënuñu ko di ñu jàppale di ñu déglu di ñu soutenir di jël suñuy xalaat di ko traduire en acte di investir pour que Rufisque mën a retrouver son stade mais coono yooyu yëpp mu daj dafa fekk yow tamit ci ndigalu son président de la république monsieur Macky Sall nga jël ay action am traduire ko ba tey ñu Rufisque mën a jot staatam donc cant bu ñu cant monsieur le maire Daouda cant googu dinañ la ko delloo monsieur le ministre tey nag appel la ñuy lancé chers Rufisquois yenn sportif yenn mouvement associatif cadeau bii ñu ñu jox naam sunu alal la naam sunu koom-koom la mais dañ ko war a sàmm dañ ko war a raay dañ ko war sax di ko fóon ndax toog nañ juróom-ñaari at amuñu ko dañuy demander l'ensemble des supporters muy le mouvement nawetaan muy les clubs d'élite muy les sportifs de manière générale que kado bi ñuy jox ñu sàmm ko ñu sàmm ko pour mën a delloo njukkal ñi ñu ko jox en tout cas ñi ngi wax ne le mouvement tànn du xaar mukk nit kuy yàq kado bi du xaar nit kuy yàq lii nga xamante ne ni son président excellence président la République jàpp na ci lii nga xam ne le maire de la ville de Rufisque def na ci loxoom bu mat sëkk pour Rufisque mën ko jot toutes les décision seront prises au moment où des fauteurs de troubles wala des perturbateurs ñëwoon noonu di bëgg a yàq suñu je vous remercie de votre aimable attention. ok merci monsieur Babacar Dieng wax ji rafet na bu baax a baax baax merci nous vous félicitons mesdames et messieurs nous allons maintenant accueillir monsieur le maire de la ville El Hadji Daouda Niang. monsieur le maire ce sera ce beau applaudissement s'il vous plaît. ñu la ñuy jox kaddu gi. yaakaar waa le maire a ngi noonu ndeysaan ñu jox ko kaddu gi mu le maire c'est vous la parole. asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa Tëngéej asalaamaaleykum waa mel. asalaamaaleykum monsieur le ministre des sports monsieur Matar maa ngi nuyu garde des Sceaux ministre de la justice Madio Madio Ismaïla Madior et je l'admire tellement que pour pas dire son nom j'ai des maa ngi nuyu. Euh, député Seydou Diouf di nuyu le président Souleymane Ndoye di nuyu le maire Mame Omar Mané Alioune Ma Albé Ndoye ak tous les maires du département de dama tànn tey wax ci olof parce que am na wax yoo xam ne yi bu jotee danga koy wax pour ñëpp dégg dama bëggoon ngeen may ma tuuti ma gërëm koo xam ne kii dafa liggéeyal Tëngéej dëgg bu liggéeyalee Tëngéej ay kilifaam ñoo ko ko sant may remercier monsieur le premier ministre bu premier ministre joxe ndigal kilifaam moo ko sant ci turu Tëngéej may remercier le président de la république dama ne nit mën na am équipe waaye am ci sa équipe koo xam ne kii dafa am lu mu wane mooy déglu dégg dafa am solo ci kilifa jël décision dafa am solo ci kilifa bu ci doolee nag mu lay tànnal le meilleur gazon le meilleur gazon moom moo ko génne ci gémmiñam ah am naa yaakaar ci ne kooku bu toogee da ko war a wax ñépp dégg ko lépp lu mu fi andi qualité la nañ nangu loolu dëgg liggéey bi xaw na métti waaye lii ci am lii olof di wax naan euh, bu ta mu mu ngi taw mais léegi bànneex ñëw li fi wax jaar yëpp ci ay wax ay jafe-jafe ci taw bi la rek mais taw day defar bu fekkoonte ne bi déglu woon na pression yi dal ci kawam bon le quatrième élément bi mu bëggoon a wax léegi muy sécurité bon du insister pour que fii di charpente bi ñu reprendre ko te bu tardé ba gën a tardé charpente bi moo tax loolu tardement bu am et il a tenu à ce que mu am sécurité te ça c'est important je dis donc écoute décision choix du bien sécurité loolu laa découvrir ci ministre bi yore des sports andi ko fii ci Tëngéej ñu teg suñu bët ñun ñëpp ginnaaw ba mu amee pression bu nekk mënuñu bañ a tudde la compassion de deux directeurs généraux le directeur général de l'ADM le directeur général de l'AGETIP plus la pression des jeunes qui viennent de parler plus le souci des populations il faut dire que monsieur ba vous êtes un encaisseur. Ça, il faut le bu fekkente yàlla dogal na ñu ànd ak moom ba fii ñu jël lu am solo yi tekk seen loxo ñi fi jaar Tawfekh Kébé di mbay euh, mbay fay ak xol bi mu yéene Tëngéej ci liggéey dama ne ñun amatu lu ñuy wax ñun waa Tëngéej lu dul sant yàlla gërëm ko gërëm équipe yi participer ci liggéey boobu am nañu yeneen xalaat ci waxtaanu Babacar léegi dafa wax lu am solo mooy nu ñuy fexe ba préserver cet ci précieux di côté de la municipalité un budget d'accompagnement et toujours prévu pour que les stades ne connaissent aucun problème. Nous avons décidé aussi en informer nous avons déjà informé monsieur le ministre que militaires yi la ñu bëgg a dénk stade bu ko defee ñu géral ñu ko ni ñu ko bëggee bu boobaa dina yomb ci ñun ñu construire benn réceptif c'est déjà prévu 52 lits piscine terrain de basket terrain de handball et le puzzle est réglé plus maintenant la piste ça ça fait partie des projets qui sont déjà ficelés et nous comptons sur le PACASEN pour pouvoir réaliser ça am naa yaakaar ci ne bu loolu nous sommes en droit et devoir de demander aux jeunes véritablement de faire moos de fair play manuma wax ba jeexal te waxuma ne Augustin euh, Senghor le président de le président de la fédération est venu jël nañ décision andi fi yeneen am naa yaakaar ci ne bu fekkente ne ñun dañu bëgg a siggi fu ñu taxaw dama bëgg kuy gan ñëw fii wax ne le public de Rufisque est un public fair play est un public discipliné est un public sportif yooyu yëpp lañu ñu bëgg ngeen sóoraale ko maa ngi wax benn wax nag dañ ne mbeer waxati bu ñu demee ba ñu gis loo xam ne day yàq match day yàq stade bi wala nar fi andi jëye man je prends la décision de fermer le stade dem waxtaanee waa Kaaf merci monsieur maire jërëjëf monsieur ci introduction bu am solo boobu ak li nga wax. dafa am lu ma fàtte. dafa am lu monsieur le dafa am lu ma fàtte. dama bëgg a yéen waa Tëngéej dama bëgg a yéen ngeen décider que Matar Ba est nommé au titre de citoyen d'honneur de la ville de Rufisque. merci tàccu leen loolu. gars yi loxo yi bu baax a baax ci kaw. monsieur le ministre des sports Matar Ba mooy citoyen d'honneur bu Rufisque. ak yaakaar naa ni loolu am na solo loolu jar na commentaire mais am na programme boo xamante ni da nga ko war a dugal le temps que ñu jëm ci yeneen orateurs yi. balaa loolu nous saluons la présence de l'honorable député monsieur Seydou Diouf. le président de la fédération sénégalaise de handball gars yi xool leen mouvement bi am solo fële ca kaw. waaw entre le maire de la ville de Rufisque et également le ministre Matar Ba. citoyen d'honneur citoyen d'honneur de la ville de Rufisque. nous saluons la présence de monsieur Seydou le président de la fédération sénégalaise de handball il est en même temps le président honorable député. Nous saluons également la présence de M. Alun Falmar, le maire de la commune de Rufusco-Ouest. Il est là parmi nous. Mais sur ce, mesdames et messieurs, le stade Ngarel Diouf va virer à partir de Sam, à partir de euh, demain vendredi, le tournoi de l'IFOA qualificatif Cannes U17 dinañ ko amal fii Stade Ngalandou Diouf muy le dimanche 9 donc toute l'Afrique se donne rendez-vous ici à Rufisque plus particulièrement au stade Ngalandou pour les besoins du il fois qualificatif CAN 2000 euh, di CAN bi nga xam ne bii dinañ ko amal nous saluons également la présence de tout nos amis kon bokk ci kaw loolu dogo waaw léegi nag euh, ñu woo Amaneex ana Amaneex Amaneex Amaneex Amaneex Gamou Gueye doomu dangu et 10 000 waa loolu ñaari benn benn pour deux minutes la après ñu jox nag le président conseil départemental bu Tëngéej di Souleymane Ndoye ana Amaneex. Amaneex doomu dangu 10 000 problèmes et Gamou Gueye aca mu gaaw aca mu mu gaaw balay. aca mu gaaw balay président. waaw aca mu gaaw mu gaaw balay président Amaneex. Voilà. Monsieur le ministre des Sports, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le préfet du département de Rufisque, honorable député président de la commission des lois, Monsieur Seydou Diouf, Monsieur le directeur général de l'AGETIP, Monsieur le directeur général de la CSTTP, Mbaye Faye, Monsieur le maire de la ville de Rufisque, Monsieur le maire de la commune de Rufisque Nord, Monsieur les maires ngeen defal seen xarit ministre des sports Matar Ba léegi nag ñu jox le président conseil départemental bu Rufisque monsieur Souleymane Ndoye c'est vous la parole merci beaucoup monsieur le ministre des sports notre cher ami et frère Matar Ba monsieur le garde des Sceaux ministre de la justice monsieur Ismaïla Madior Fall qui pas plus tard que hier a gratifié toute la jeunesse de Rufisque de jeux d'équipement Monsieur le ministre, nous vous disons merci. Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le préfet du département de Rufisque, honorable député président de la commission des lois, Monsieur Seydou Diouf, Monsieur le directeur général de l'AGETIP, Monsieur le directeur général de la CSTP, Monsieur Mbaye Monsieur le maire de la ville de Rufisque, notre oncle El Hadj Daouda monsieur le maire de la commune de Rufisque Nord monsieur le maire de la commune de Rufisque Ouest Alioune Mar monsieur le maire de la commune de Rufisque Est monsieur Boubacar Albert Ndoye monsieur le président de l'ONCAV monsieur le président de l'ORCAV de Dakar mon ami et frère Arono Bathily monsieur le président de l'ODCAV de Rufisque Monsieur le Président du collectif pour la réhabilitation du stade Ngalandou Monsieur le Président de zone, Monsieur le Président des ASC, <coughs> Mesdames et Messieurs, chers invités, en vos titres et rangs respectifs. Nous sommes réunis en ce jour pour procéder à l'inauguration de ce joyau du département de Rufisque, mais également de tout le Sénégal, le stade Galandou de Rufisque. Pour rappel, ce stade constituait un symbole pour le sport rufiscois. C'est sans doute la raison pour laquelle tous réunis comme un seul homme, les autorités politiques, les jeunes, les acteurs du département ont porté le plaidoyer pour sa réhabilitation. En effet, la fermeture de ce stade a donné un coup de frein aux activités sportives du département, même si les jeunes ont su trouver des alternatives pour rester au premier rang. Moteur de développement, Le sport occupe une place centrale dans le tissu socio-culturel de Rufisque. En effet, ce département avait éclore nombre de figures historiques dans le sport, à l'instar de Doudou Sow, de Feu Hassan Paye, de Abdoulaye Sen, de Tcherno Youm, de Pabouba Diop, de Abdoulaye Diane Faye et j'en passe. Revoir le démarrage des activités au sein de cette infrastructure moderne constituerait sans doute une grande fierté pour toutes ces figures emblématiques qui ont porté loin le nom de notre cher département. C'est le lieu d'ailleurs de remercier très chaleureusement M. Matarba, ministre des Sports ici présent, qui n'a ménagé aucun effort dans le plaidoyer et la mise en œuvre de la réhabilitation de ce stade. Monsieur le ministre, votre dévouement à la cause de toutes les disciplines sportives n'est plus à prouver. Vous avez saisi les enjeux qui gravitent autour du sport et dans cette perspective, avait déroulé un important programme dans ce domaine. Je vous exprime, à mon nom et au nom de toutes les Rufusquoises et Rufusquois, nos sincères remerciements. Ma reconnaissance va également à l'endroit de M. Serigne Babacar Kane, préfet du département qui, depuis son installation, accompagne toutes les initiatives des élus locaux et fournit un travail de coordination sans aucune mesure. Je voudrais également remercier et féliciter le maire de la ville de Rufisque, M. Daouda Niang. qui, depuis le début du projet de réhabilitation entamé par ses prédécesseurs, je veux citer Feu Ndiawar Touré et Badar Mamaya Sen, n'a ménagé aucun effort pour la finalisation des travaux. Aujourd'hui, je sais toute sa fierté et son contentement à participer à cette cérémonie d'inauguration. Permettez-moi également, mesdames et messieurs, de féliciter le maire de la commune de Rufusco Nord ainsi que ses autres collaborateurs et collègues, dont la satisfaction est parce qu'ayant fait de ce projet une priorité en tant que représentant et garant des intérêts des populations. À l'instar de mes homologues, je suis honoré et très fier de pouvoir prononcer ces quelques mots dans ce cadre qui a marqué notre jeunesse. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour interpeller la jeunesse. En effet, une telle infrastructure a mobilisé d'importants moyens financiers, notamment dans la modernisation des outils et l'installation d'un gazon synthétique. De tels efforts méritent une de par votre comportement et de par une bonne appropriation de ce bijou. Je vous encourage à entretenir cette infrastructure en combattant la violence qui ne saurait trouver de place dans le sport et en respectant les lieux. Chers présidents d'organisations nationales, régionales, départementales, présidents de zones, je suis conscient que vous êtes déjà dans une dynamique réelle de propulsion du sport, mais je vous exhorte à ne ménager aucun effort à l'instar de ces autorités ici dans l'essor du sport sénégalais au niveau départemental. Mesdames et messieurs, le maire pour la fin, dit-on. Je ne saurais alors terminer mon propos sans remercier très chaleureusement son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. La volonté politique de tous les acteurs ici présents ne saurait se concrétiser sans l'appui et l'accord de son Excellence Monsieur le Président de la République. Visionnaire exceptionnel en son genre, il accorde une place de choix au sport et les réalisations telles que l'arène nationale, l'aréna de Diamniadio et les projets en cours comme le stade de 50 000 places prévu à Diamniadio suffisent pour traduire sa volonté à promouvoir le secteur du sport. Cette dynamique, il l'adopte dans tous les autres secteurs de la vie sociale et économique. La pêche qui bénéficie d'un appui constant, l'agriculture qui est devenue un levier économique important. Veuillez trouver ici, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'expression de toute notre gratitude en tant que fils du département, ce département qui occupe une place de choix dans votre politique de développement du plan Sénégal émergent. Pour finir, je m'adresse à notre chère jeunesse pour vous dire que nous sommes derrière vous. Nous fondons beaucoup d'espoir pour les jeunes sportifs du département qui ont toute notre attention. Les exploits que vous faites dans vos domaines respectifs portent leurs fruits en et politiques. Préservez dans la tâche parce que la réussite n'en est en réalité qu'au bout de l'effort. Appropriez-vous ce bijou en le faisant vôtre. Respectez-le, entretenez-le, car en réalité, il est votre patrimoine. Je vous remercie de votre attention. Merci. jërëjëf président Azo président kooku mooy président conseil départemental bu Rufisque Azo yaakaar naa ne am na loo bëgg a yëgle. way kookoy l'honorable député monsieur Souleymane Ndoye léegi nag xam ngeen ne li nga xam ne bii ginnaaw inauguration la remise des clés tey stade Ngalandou Diouf suba incha allah bu nu ko yàlla mayee dinañ dawal li nga xam ne bii moom mooy wàllum nawetaan waa zone 1A du président monsieur Babacar Dieng ñoom ñooy ubbi la balle 17h Thiawlène Renaissance 19h Colobane BE2 21h Castor. Djoubo de Goumourit, un programme alléchant pour le compte bien sûr de la zone 1A e du président Babacardien pour l'ouverture des Navétanes ici à Rufisque. jërëjëf Azal léegi nag ñu dugal Gorgui Ndiaye alias Go. l'enfant chéri de la vieille cité. jërëjëfati président général directeur général bu CSTP Aladji Mbaye Faye. góor gi Ndiaye l'enfant chéri boo dugg ñu xam ne dugg nga ba génn gars yi tàccu leen ko bu baax a baax alaaji Mbaye dëkk boo dugg ba génn ñu xam ne dugg nga fa ba génn boowee dee laajal waa Pikine alias go ah, maa ngi ziar ñu ngi lay ziar kontaan naa dogo jërëjëf salaamaaleykum maa ngi sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed di nag sargal képp kuy doomu Tëngéej maa ngi lay sargal ci bés bi parce que bés bi tey bés la bu màgg ci Tëngéej di remercier monsieur le maire Daouda Niang bu ma jógee ci Daouda Niang ma teg ci Ismaïla Madior Fall doomu Tëngéej boobu teg ci albendo yi di remercier Alioune Mar di remercier Omar Mané di remercier képp koo xamante ni rek doomu Tëngéej nga ngay maire wala ngay autorité mais nag tey dañu am gan gan gi ñu am mooy Matar Ba le ministre ma bëgg ñëpp tàccul ma ko bala may am dara lu ma wax mbay fay ñu ngi koy gërëm bu baax a baax Faye Birame Penda Wagaan parce que ñun Tëngéej rek la ñu am di remercier le président Souleymane Ndoye di ko remercier Seydou Diouf fàttewuma la ku lim da ngay juum mais tey ku am gan da ngay teralaate te Matar Ba tey mooy sunu gan muy ministre di suma xarit nit koo xamante ni ku neex a fekk Fatick waaw yamma jengi laare ko di ñaari laare nugu foynilare wayla ndam xota yam yewe une minute rek ma ñëw e eh, eh, jahowo sawodi yaadi kam yeeto yahaade matar mbede salna njoolam balejo ujjomba horobol pulusi pi gayni كلهما كوت مسلاكي مي وما هادن متى سدغس ني نيام ديكو هوبت بلوكو تان لغال نكونو الله جبدو اي سباي ماتار با ماتار باي سمام موم لا ني تونتو ماتار مسيو لي مينيستر نجوغو كا باي سمام نجوغو كا با سمام راماتي مي مكه ماتار با Ablaye wuli ma taxuma ma ca potaas. gis ngeen ko yàlla def mu noppal leen njóogu ma ka sama njóogu ma ma tey sa maam. wallaay dëgg la. jërëjëf seer ma tey sa maam. monsieur le ministre. seer ma tey day bàyyi ma c'est sama waa ji jël kaddu. donoy ma ba jaxu ba. Matar sama Matar lañ la dippee Abdou Ba la ñuy sa baay Ibou Ba nga bokkal ne baay Adja Assou Diouf la sa yaay yaay borom ju ñu ngi ci Sine borom ju ñu ngi ci Jaxaaw l'homme de confiance président Macky Sall bàyyi na fi satu Serigne Ndeye jërëjëf Khady Thiam jërëjëf góor gi Ndiaye góor gi Ndiaye may leen ñu tuuti góor gi njaay góor gi njaay dama lay bañ a bàyyi nga yeggale parce que danga may yëngal kon baax na. nañu commencé damay bañ a yëngatu moo tax monsieur le garde des sceaux ministre de la justice mon cher ami et frère le professeur Ismaël Madior Fall je voudrais demander aux populations de Rufisque surtout ceux qui sont ici d'applaudir mon cher ami parce que j'ai vu la dotation qu'il a eu à faire pour les ASC de la commune de Rufisque. Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le préfet du département de Rufisque, Monsieur le maire de la ville de Rufisque, doyen Nian, Monsieur le président du conseil départemental de Rufisque, mon cher ami Souleymane Ndoye Monsieur Seydou Diouf, chers amis et frères, honorables députés, président de la Fédération sénégalaise de handball, Monsieur le président de l'ONCAV ou son représentant, Monsieur le directeur général de l'AGETIP, Mesdames et Messieurs, les maires de commune Monsieur le directeur général de la CSTP, mon cher ami et frère Mbaye Monsieur le directeur des infrastructures sportives au ministère des Sports, Cheikh Ahmed Tidjansa, Monsieur le représentant du Comité national olympique et sportif sénégalais, cher ami Seydina Diagne, Mesdames et Messieurs, les présidents de zone, le président d'ODECAV, le président de l'ORCAV, cher Arona Batili, mais aussi les présidents d'ASC. Chers membres du mouvement sportif, chers supporters de l'ASC, les Bouguis de Dangou, chers supporters de Ndiagne Samb de Diokoul, mais aussi Abdoulade qui porte le nom de mon marabout, qui est le président du collectif pour la défense ou bien la réhabilitation de Ngalandou Diouf. Chers amis, surtout cher président qui a parlé au nom du mouvement sportif, ce jour de septembre 2018, plus précisément ce jeudi doit être marqué d'une pierre toute blanche dans les annales de l'histoire sportive de la ville de Rufisque, puisqu'il constitue la date d'inauguration ou bien de la remise en service du stade Ngalandou Diouf, réhabilité et reconstruit à plusieurs années, après plusieurs années de fermeture de l'ouvrage Je voudrais, avant de poursuivre ce discours, saluer le ministre Oumar Gueye, qui aujourd'hui empêché, mais qui s'est fait représenter. Je pense bien évidemment à mon ami Ndian Diop, qui certainement est en train de nous suivre. C'est pourquoi, au nom de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et au nom du gouvernement, je voudrais féliciter et remercier très sincèrement les populations de Rufisque ainsi que les autorités administratives, politiques, religieuses et sportives qui sont venues en masse pour célébrer l'événement. Je voudrais surtout, au nom du président de la République, rendre un hommage à la jeunesse sportive de Rufisque, qui a su faire preuve de foi et de patience pour gérer le temps de fermeture du stade Ngalandou Diouf. Certes, il y a eu, pendant la longue période de pause, quelques mouvements d'humeur, des tensions et des réclamations, mais ces revendications, au demeurant, normales et opportunes dans une société de droit et de liberté, ne sont jamais au -delà, allées au-delà de l'intolérable et de l'irresponsabilité. La ligne rouge n'a jamais donc été franchie. L'occasion me semble propice pour remercier également les autorités de la ville de Rufisque, notamment le maire de la ville. Ces autorités qui ont initié le projet de réhabilitation de Ngalandou Diouf en relation avec l'AGETIP et l'ADM. Je voudrais, monsieur le maire, vous dire toute ma satisfaction d'accepter ce que vous avez dit tout à l'heure, être citoyen d'honneur de la ville de Rufisque. Et je pense que vous me trouverez un petit, je dirais pas un mètre carré, mais quelque part où je pourrais mettre ma case pour venir passer la nuit à Rufisque. Ces autorités ont compris que Rufisque méritait de disposer d'une infrastructure moderne, bien, au, bien aux normes des instances internationales. Car Rufisque, nous le savons tous, a toujours été un grenier et un réservoir de talents du sport sénégalais, toutes disciplines confondues. Rufisque a toujours joué un rôle de pionnier et d'avant-gardiste en matière d'organisation, de développement et de promotion de la chose sportive. C'est pourquoi Lorsque l'ambitieux programme de réhabilitation et de modernisation de l'ouvrage a connu quelques difficultés, c'est tout naturellement, avec toute promptitude requise, que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a donné les instructions nécessaires pour impulser la poursuite des travaux et leur finalisation dans des délais raisonnables. C'est ainsi que mon département faisant suite à ces instructions de l'autorité a pris en charge la réhabilitation du mur Bayou, de la grille de protection, la réalisation de l'éclairage sportif et de l'éclairage ambiant, la pose de gazon synthétique adéquat et l'aménagement d'une piste d'athlétisme encendrée. Je voudrais dire à M. Mbaye Faye félicitations et tous mes remerciements pour votre engagement patriotique pour le Sénégal. C'est ici le lieu, en tout cas, de te féliciter et féliciter l'entreprise qui a réussi à réaliser ses travaux dans des délais raisonnables. La compagnie sénégalaise des travaux publics, en y apportant une touche citoyenne qu'il importe de souligner et de magnifier. Je voudrais donc demander aux autorités administratives et locales, au mouvement sportif local, de prendre en charge et de prendre soin l'ouvrage et de veiller aux conditions de sa gestion, notamment la maintenance et l'entretien. La maintenance et l'entretien de nos ouvrages sportifs posent souvent problème et un audit technique commandité par les services de mon département en atteste. Et aujourd'hui, vous avez ici à Rufisque le redoutable défi de réussir ce pari de l'entretien et de la maintenance et de le donner en exemple aux collectivités territoriales et au mouvement sportif national et local. Mesdames et messieurs, chers invités, en tirant les enseignements du programme de reconstruction du stade Ngalandou Diouf de Rufisque, on ne peut s'empêcher de mentionner la pertinence et l'efficacité de la vision du président Macky Sall, notamment en matière de réalisation d'infrastructures sportives. Le président de la République à compris que sans infrastructure sportive de base, il n'y a pas de pratique sportive structurée. Il n'y a pas d'activité sportive normée. C'est pourquoi il s'est engagé dans ce secteur structurant avec des résultats tangibles et appréciables qu'il convient de souligner et de magnifier. Rappelez-vous, il y a à peine un mois, le 8 août dernier, le président Macky procéder à l'inauguration de la salle de Dakar Arena à Diamniadio, une infrastructure moderne et multifonctionnelle de 15 000 places de toute dernière génération capable de recevoir des compétitions de basket, des compétitions de handball, de volleyball, de tennis et d'autres équipements connectés et intelligents. Un peu moins d'un mois auparavant, le 22 juillet 2018, le président Macky des mains de son homologue de la République populaire de Chine les clés de l'arène nationale de lutte. Un joyau multifonctionnel de plus de 20 000 places et qui doit être compris et apprécié comme un hommage rendu à la lutte sénégalaise et à ses dirigeants, à ses pratiquants et à ses succès, à son impact et à son ancrage dans notre société. Je voudrais saluer la présence de Amaner, qui est mon neveu, mais souligner aussi la présence de l'ensemble des lutteurs du département de Rufisque. Mais je précise aussi que j'ai vu notre cher ami, le talibé du président, l'ancien président Yaoudjal. Dakar Arena et Arène Nationale, deux infrastructures importantes et futuristes qui se détachent avec un relief exceptionnel. d'un immense programme de construction d'ouvrages sportifs sur l'étendue du territoire national. Entre autres réalisations du président Macky Sall, on peut mentionner la modernisation du stade Ndiarem de Guédiouaï qui doit être inauguré dans les semaines à venir, la reconstruction des stades des parcelles assainies, d'Angor, de Mbao, du stade Latjor de Thiès et qui doivent être livrés et opérationnels avant la fin du mois de, avant la fin de l'année le démarrage des travaux des stades régionaux de Sédhiou et de Kédougou, qui connaîtront un pourcentage d'exécution considérable avant la fin de l'année. Le programme en cours du stade Babacar Sey et du Palais des de Saint-Louis. Les dossiers ficelés et maîtrisés des stades de Bambay, de Malika, de Nguyen, de Tiwawon, de, Gé... et de Padoua. Sans oublier bien sûr la réalisation prochaine du stade olympique de 50 000 places sur la plateforme de Diamniadio. À l'horizon 2020-2021, déjà annoncé par le chef de l'État. Au total, c'est un investissement de plusieurs dizaines de milliards, jamais consenti dans le domaine du sport et qui est en en tout cas au plan national comme international, de changer et de façonner une nouvelle image du sport sénégalais. Mesdames et messieurs, chers invités, L'énumération est longue et peut-être fastidieuse, mais elle est loin d'être exhaustive. Ce sont des exigences de la pédagogie, à la sève de laquelle nous avons tous été façonnés, qui nous instruisent de rappeler ces réalisations du président Macky Sall dans le domaine du sport. Ce programme sportif d'envergure, en tout cas, ne constitue pas une fin en soi, il a pour finalité le développement et l'émergence de notre nation. Car le sport entretient une relation étroite avec la diplomatie pour le rayonnement du Sénégal. À l'intérieur et à l'extérieur, le sport promeut l'éducation, le tourisme, la santé. Le sport joue un rôle essentiel dans la construction des économies modernes et dans la correction des déséquilibres sociaux. Le sporor est synonyme de vitalité. Il est consubstantiel à la vie en communauté, dans une société qui se modernise et qui a l'ambition de progresser. Mesdames et messieurs, pour terminer, je demanderai aux deux ASC qui vont tout à l'heure s'affronter de donner l'exemple dans le fair play et permettre au maire de la ville, au président du conseil départemental et l'ensemble des maires qui sont là au gouverneur et au préfet d'être en tout cas dans la quiétude en s'assurant que les concernés, ceux qui aujourd'hui à qui on va livrer ce bijou, ont compris les efforts de l'État du Sénégal. Et ça ne peut que se faire dans le fair play et dans la sportivité. Je voudrais renouveler mes félicitations et mes encouragements aux autorités administratives, politiques, religieuses au mouvement sportif national et local, au groupement de jeunesse. Je vous demande encore une fois à tous et à toutes de faire preuve de responsabilité et de prendre soin de l'ouvrage que nous inaugurons cet après-midi. Au nom de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall. Je vous remercie de votre aimable attention. Euh, mbokk yi léegi nag. allo allo. ministre des waaw ministre de la justice gouverneur président conseil ñoom ñëpp ñu wàcc waay général bu AGETIP directeur général de la CSTP monsieur Seydou Diouf monsieur le maire monsieur le président de l'ONCAV monsieur le directeur général bu CSTP monsieur Souleymane Ndoye monsieur le directeur général bu AICIL ak président collectif yi nanu wàcc ak monsieur Abdou Ndiaye monsieur Libas Bass nanu wàcc alors pour le coup d'envoi voilà Dogo pour le coup d'envoi ñëw nag le ministre dafay dindi li nga xam ne bii moom mooy plaque bële plaque boobu lay dindi léegi nag bu ko dindee ba pare bu ñëwee fii nag daal di nuyu ñi nga xam ne bii ñoom ñooy les joueurs bu ba pare nag ñu bi def li nga xam ne bii moom mooy le coup d'envoi nous saluons la présence de monsieur Seydou Diouf honorable député le président de la Fédération sénégalaise de handball, M. Seydou que nous disons encore une fois merci. à Aline Falmar, merci à Mam Omar Mané, merci également à Boubacar Albendoy, excellent maire de la ville de Rufisque, El Haji Daoudegnan, le président du conseil départemental de Rufisque, l'honorable député Souleymane Doy. Un grand merci également à monsieur le ministre de la Justice, Gardesso, Ismaïla Madior Fall le grand donateur que nous disons encore une fois merci merci à la jeunesse de Rufisque à la jeunesse du département de Rufisque les anciens footballeurs également nous leur disons encore une fois merci Mohamed mais bien sûr moom sunu xarit la sunu waay la moom stagiaire la ak ñu mi àndal ñëpp ñu ngi leen di gërëm donc merci aux stagiaires léegi rafet na ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant waaye ca dogo. Azza léegi nag le ministre des sports. waaw moom mooy def coup d'envoi bi. tout à fait. ànd ak ministre des justice garde des sceaux. ànd ci de la CSCP. ànd ci ak honorable député Seydou Diouf ak monsieur le maire. ak monsieur le président ak ñi nga xamante ne nii ñoo yor nawetaan yëpp. waaye le directeur général de la CSCP. le directeur wax naa dëkk bu mu dugg ba génn. ñu xam ne dugg na ci Alaaji mbay fay jërëjëf voilà merci Alaaji Mbaye Faye on vous remercie de de tout ndax dëkk boo dugg ci Sénégal soo génnee ñu xam ne mbay fay ak CCF dugg na ba génn di nuyu nag présence su ñi jugee délégation bi jugee Ngunjaan Alaaji Moussa Sène waaw présentation yaa noonu nag ak waa Ngunjaan yëpp le ministre des sports wax CCP. waaye moom mooy le de la ville de Rufisque. ndax foofu loolu lépp ki nga xam ne kii moom mooy monsieur Souleymane Ndoye l'honorable député. le président du conseil départemental de Rufisque. àndax tamit le ministre en charge de la justice garde so Sceaux Ismaïla Madior Fall. àndax tamit Abdoulahat Diakhaté pour le collectif. et également monsieur Seydou L'honorable député, le président de la commission des lois au niveau de l'Assemblée nationale, il est en même temps le président de la Fédération sénégalaise de handball, Monsieur Boubacar Albendoy Elage. Nous vous disons encore une fois merci à Monsieur Mam Omar Mané, le maire de la commune de Rufisque Nord où nous sommes. Merci aux deux équipes pour le fair play, l'ASC Les Bouguilles et également l'ASC Ndiagne Samb. Vous êtes les ambassadeurs du fair pour cette 2018, 2019. Soyez fair play, on est fair play, nous resterons toujours fair play, vive le fair play. Voilà, mesdames et messieurs, pour le coup d'envoi, nous demandons à monsieur le ministre des Sports, monsieur Ismaïla Madior Fall, garde des Sceaux, au maire de la ville de Rufisque, El Hadji Daouda Niang, au gouverneur et le préfet de Rufisque, à monsieur Souleymane également, et également à monsieur Boubacar Albendoy de l'Est, Aline Falmar de l'Ouest, Mam Omar Mané de la commune du Nord où ñoom ah. ñooy dugg nag daal di doxee li nga xam ne bii. di nuyu sama jigéen Maguette Fall s'il vous plaît. Monsieur Omar Gueye est bien présenté. Monsieur Omar Gueye, le ministre de la de l'économie maritime, il est représenté par son chef de cabinet. Monsieur Kanadoy, que nous disons encore une fois merci. Voilà. Monsieur le directeur général de la CSTP, jërëjëfati dëkk boo dugg ba génn rek ñu xam ne dugg nga. boo weddee laajal Pikine Alassane Djigo mbaa nga laaj Thiès mbaa nga laaj Guédiawaye Ndiarème Limamou Laye mbaa nga laaj stade yi nga xamante ne nii stade Fatick bi mbaa nga laaj. tubaarkalla. voilà gars yi ñu dem waa Ngoundiane. voilà ca mën nañu dem Makka. wala laay see bugi laay see Ndiaye Samb monsieur Maguette Ndoye un du basket il est international de basket que nous disons merci monsieur Maguette merci de votre présence. voilà mesdames et messieurs ASC Lebougui ASC Ndiagne Samb ñu xamal leen ne suba la zone en a dina am un programme alléchant muy ouverture nawetaan yi 17h Thiawlène Renaissance 19h Colobane BE2 21h Castor Dioubo de Guy Mouride monsieur Babacar Dieng le président de la zone 1A voilà les les équipes s'il vous plaît les équipes s'il vous plaît pour le coup d'envoi les équipes s'il vous plaît l'ASC Ndiagne Samb est demandé Voilà, pour le coup d'envoi. Voilà. Monsieur Papsal en costume. Oui, super Papsal. Il est très bien habillé ce soir. Monsieur Seydou Diouf, l'honorable député. Acha. Voilà, gagne encore une fois, vous barre, baax kookooy le ministre le ministre en charge du football muy def passe na kii nga xam ne kii moom mooy Souleymane Ndoye et l'autre ministre bien sûr en charge de la justice garde des Sceaux voilà voilà code de Gaulle monsieur le ministre sànni ko bal mu ne nee na dee góolu ko bal bi kon kon xaaruñu sànni la bal voilà c'est autour du léegi léegi ñu sànni ñu sànni ko sànni ko <laughs> voilà kookooy monsieur Matar Ba le ministre en charge du sport. acca super les gars. loxo yu ba ndeysaan. gars yi loxo yi encore. le président loxo yi bu baax a Ba ministre ah, des sports monsieur Faye. yaa ngi ci terrain <laughs> yaa ngi wax ak équipe nawetaan yi. yaa ngi wax ak ASC yi. voilà am na solo barki démb nga jóge am na solo sa eh, station bu ñëw en kontaan nañu bu a baax secrétaire général mu ngi fi Paul John sa directeur de cabinet Ibrahima Ndaw mu ngi fi amoo vacance gouvernementale ministre yëpp jël nañ vacance waaye yaa ngi ci terrain bi di ànd sa staff vous êtes l'un des meilleurs ministres des sports depuis l'indépendance tey fii ci Tëngéej histoire day bindaan sept ans kenn joué fi nawetaan Matar Ba ci ndigali président Macky Sall nga ànd ceeg la DG de la de la GTIP ànd ceeg Mbaye Faye CCT waaye ànd ceeg gouvernement bi yëpp ànd ceeg le ministre Ismaïla Madior Fall ñuy bëggee honorable sa ànd ak Ba yàgg loolu du tey lu yàgg dëgg la honorable député président du monsieur Abdoulaye Diakhaté président lii la bëgg. Abdoulaye Diakhaté l'avenir de demain. le maire de la ville. l'excellent maire de la ville de Rufisque. El Hadji Daouda Niang. monsieur Mame Omar Mané. le maire de la commune de Rufisque Nord où nous que nous disons encore une fois merci. à l'ensemble. le président de l'ORCAV. monsieur Arouna Bathily que nous félicitons encore une fois. pour le collectif. nous disons un grand merci à monsieur Babacar Dieng. Tu es a habillé ce soir. Un grand merci. Donc ñuy gërëm ñëpp monsieur Ismaïla Madior Fall le ministre garde des soow ministre de la justice démb rek ñi nga xam ne bii ñoom ñooy ASC yi démb ku si nekk jox na li nga xam ne bii moom lay solo muy doon tamit lu am solo kon boog ki nga xam ne kii moom moo def loolu démb moom mooy monsieur Ismaïla Madior Fall. di ko gërëm bu baax di ko sant wante nag di bàyyi xel bu baax ci Mamadou Koro Fall le président des saltigués de Rufisque moom tam ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant El Niang leur président l'ASC Lebougui et l'ASC Niang Samb leur président s'il vous plaît le président de l'ASC Lebougui le président de l'ASC Niang Samb sont demandés Voilà, nous félicitons le ministre des Sports. Nous félicitons monsieur Ismaïla Madior Fall, le ministre en charge de la justice garde des Sceaux. Nous félicitons le maire de la ville de Rufisque, le maire de la commune de Rufisque Nord, la commune de Rufisque Est, la commune de Rufisque Ouest également. Nous félicitons les associations sportives de Rufisque et du département. Nous le disons encore une fois merci. Merci aux sportifs, merci au fair play et également Merci à Monsieur Sersar, le directeur bien sûr des infrastructures au niveau du ministère li nga xam ne bii daal vraiment am na solo lool ñu ngi gërëm bu baax a baax di ko sant Babacar Dieng pour le collectif ñu ngi lay gërëm bu baax ci liggéey bu rafet bi wante tamit suba am nga un programme très alléchant la zone 1A du président Babacar Dieng 17h Thiawlène Renaissance 19h Colobane BE2 21h Castor Dioubo fii nag lay xewee. nga xam ne bii moom mooy stade Ngalandou Diouf le maire de la commune de Rufisque Ouest monsieur ali Fall Mar que nous félicitons félicitations également à l'honorable député le président du conseil départemental de Rufisque l'infatigable monsieur Souleymane Ndoye que nous disons encore une fois merci merci à la jeunesse de Rufisque à la jeunesse du département de Rufisque vive le fair play merci à Amadou Senia El Hadj ñu ngi lay ziar merci. voilà s'il vous plaît mën nañ génn la main courante s'il vous plaît. mën nan génn du côté de la main courante s'il vous plaît. mën nañu génn du côté de la main courante. waaye ñu bàyyi fii joueurs yi ak seen encadrement ak ñi ni àndal pour la main courante s'il vous plaît Ablaye Ablaye Ablaye nga ñëw nii.